Bon, d'abord, le tourisme et un levier économique qui est fort, qui contribue quand même à hauteur de 8% qui sont nos PIB. Mais vu la situation actuelle, à l'approche des élections présidentielles, tey situation bi quand même c'est pas très favorable parce que xam nga le tourisme c'est aussi aller à la découverte de l'autre donc nit kuy jóge bitim réew di ñëw vu la situation actuelle en politique nit ñi dañuy réticent tuuti ci ci dem beeg dikk bi mais wax dëgg yàlla li ma ci gën a neex aujourd'hui mooy on a aujourd'hui compris que pour développer un un, un doomu dëkk ba ñoo ko mën a développer ba tax na le tourisme interne tey vraiment mu ngi mu ngi mu ngi dox bu baax parce que boo xoolee tey dans les restaurants dans les cafés tey sénégalais yu bëri bu di jotee ñoom ñoo fay dem tey. Mm-hmm. di di fa restaurer wu. rendez-vous yi aussi les rendez-vous d'affaires aussi. avec les hommes d'affaires sénégalais se font aussi dans les cafés et dans les restaurants aujourd'hui aujourd'hui ils ont pris goût que ne vraiment dem ci restaurant yi ak ak ak ak hôtel yi baax na ci sunu doomu réew ba tax na tey le tourisme interne vraiment c'est en de se développer